li tubaab naan hypocrite olof di ko wax naafeq loolu lañu te li gën a neex mooy lenn ci ñu koy wax nag nee nañu opposant lañu des opposants yoo xam ne mosoo leen dégg ñu opposé wu Macky Sall depuis combien de temps ngeen dégg opposants yu génn critiquer mais il sont prompts à critiquer Ousmane Sonko ils sont des opposants à Ousmane Sonko léegi mosoo leen dégg ñu wax ci pétrole bi ci ressources naturelles yi ñu wax ci terre bi suuf nangu di ko joxe ñu wax ci ci ci ci mbënd mosoo leen dégg mais ku critiquer Macky Sall ñu jóg critiquer ko ñooñu c'est des opposants de l'opposition c'est l'oppo l'opposition l'opposition à Macky Sall c'est l'opposition de Macky Sall c'est pas l'opposition à Macky Sall moo tax il faut mu leer ne Sénégal dafa am l'opposition de Macky Sall par Macky Sall par Macky Sall pour ñuy attaquer l'opposition te ñi may wax yéen xam ngeen jamais ñu opposé wu balaa may dee rek ñu génn naa ñi ngi joxe ceeb ak nangam mais on politise pas l'affaire je dis à ces de opposants heureusement les sénégalais sont avertis ndax des gens qui n'ont jamais fait de la politique réellement toog ba élection présidentielle jot ñu génn ne yor naa samay milliards courti courti je vais je euh, les sénégalais n'ont pas été parrainage sax joxuñu leen des politiciens circonstanciels Sénégal gii hypocrisie moo ko dara làmmiñ bu rëy am un début orange bu gaaw télé bu nekk dem taxaw fa mbër mbër mbër mbër mbër xam ngeen politiciens yi may wax léegi moi je veux qu'on pragmatique